asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 27 novembre 2020 ñëw ak jëf mbokk yi tey di premier décembre tey tey di mardi premier décembre 2020 ñu ñëw pour jukki leen li gën a fës ci yenn kaayu yu làmb ji ñu di ko dooree ak suñu làmb mi dalal Ibou Ndiaye Joxobaay microcentral bi mi ngi fay càmbar le roi des arènes Modou Lo Joxobaay décortique le roi Modou dégage la confiance noonu lu ko journal bi waxee maanaam ku gis Modou Lo xam ne confiance moom lu du lu mu ñàkk ñu xobaay nee na itam Ama Baldé am na client bu mu dul yekkale loolu yëpp ñu xobaay mi ngi ko doon waxee vendredi bi passé ci place souvenir bi Modou doon janook euh, taskatu xibaar yi beneen xibaar si suñu làmb Papis Général li mu fay xamle mooy moom arrêté na carrière lutteur am mbër mi nee na moom pare na doon euh, lutteur euh, ci carrière am Papis Général am na 11 combats 9 victoires 2 défaites ñeneen ci biir suñu làmb Socé Mané ñagas Tafa ak ak Tafa trois espoirs enquête de performance noonu la ko journal bi euh, bindee maanaam euh, espoiru euh, bawol mbooloo yii moom li leen gën a yiteel mooy amaat ay victoire Pape Abdou Fall itam journal bi dalal na ko promoteur bi li mu fay xamle mooy pare na pour tëgg combat bi war a dox ci Papa Sow ak Siteu nee na bu saison ubbee rek moom paf pare na pour amal boobu combat ñu fàttali ne combat boobu waroon na am ci 5 avril ba le mais mbas mi moo tax ba loolu amul ba léegi. Yaram Gueye itam euh, journal bi dalal ne ko comme euh, papis général moom itam nee ne arrêté na carrière lutteur am suñu làmb dikk na aussi si Valdo bu écrit bul faale li journal bi xamle mooy Valdo après dix dix ans de dix ans de carrière am na euh, fukki victoire ak benn défaite Garga de kese moo ko daan le 13 mai 2016 journal bi nee na Valdo ginnaaw bi mu tegalee huit victoires de 2010 à 2016 mi ngi jëm ci combat boo xam combat bu palpitant face à Ahmed dem te war na daan Ahmed dem pour rester sur sa lancée. caat itam combat euh, caat itam caat bu Boy Bambara itam euh, journal bi dalal na ko si rubrique Leewtoo la fa euh, waxee yi kàddu nee na moom combat bu ko gën a marqué. mooy combat Tafa Boy Bambara ak euh, ba Mam Balla beneen xibaar euh, depuis le vingt cinq euh, novembre passé parcelle Mbooloo amatul président Mamadou Kane ñi gën ko xam ci Zëm Kane bi doonoon seen président dafa tekki ndombal tànkam Batista 2 di mbëru lutte simple bi moom affaire am mi ngi baax temps yi noonu la ko journal bi bindee ndax ci week du du 21 au 22 novembre passé novembre bi passé dafa dem Gambie am fa jël fa benn nag ak euh, une tonne de ciment euh, samedi bi passé itam mu ñëwaat euh, village bi ñu tudd Mbulum mu jël fa gala boobu bi mu gagné après gala bi am na fa nag ak mille francs journal suñu làmb ñëw na itam si Mor Fadam mi ngi fàttali ne kooku moom moo doon mbër bi njëkk am victoire ci Léopold Sédar Senghor Tafa Gueye la fa daanoon combat boobu mi ngi amee woon le 31 mai 93 1993 ñu jógee ci suñu làmb jàll dal si record ak Abou Ndour argent ponctionné des lutteurs Modou Lo la voie à Bira noonu la ko journal bi bindee maanaam Modou Lo mi ngi wan yoon Bira Sène Modou Lo lim ci wax mooy euh, xaalis bi ñu dagg ci mbër yi CNG bi daf ko war a tëggi ay gala moom loolu la wax Euh, record dalal na itam Mouhamad Mahamad Moustapha Yahya Souley kooku benn arbitre international la bu dëkk sa Niger kooku li muy xamle mooy euh, arbitre yi Niger ni leen di fayee ak arbitre Sénégal yi ni leen di fayee bokkul ndax Niger fédération bi moom mooy xool benn som rek euh, jox leen ko. loolu moo gënoon a fës ci yéenikaay yi ñu leen di jox dig daje ba suba ak jërë jëf mbokk yi ñu leen di dalalwaat ci Leewtoo TV e, dikkal dikkaat jukkil leen li gën a fës e, ci yéenekaayu làmb ji comme ni ñu ko waxee sànq di ko dooree ak e, suñu làmb mi nga xam ne nii moom tey Ibou Ndiaye Ñoxobaay la dalal Ibou Ndiaye Ñoxobaay ñu gën ko xam ci micro central wu làmb ji moom li mu yëgle moo li mu li mu xëy séq ak journal bi mooy que Modou Lo ku gis xam ne am na confiance dal na war a mën a jëm ci war a mën a jàkkaarloog Ama Baldé mu ngi fay artu également Ama Baldé nee na am na client boo xam ne nii du ko yekkale ak kenn ndax Modou ko gisee xam ne confiance moom am na ko buñ jógee ci loolu ñu jàll ci papier général mbër mii moom li mu xamle mooy arrêté na combat wam arrêté na carrière am euh, bim dalee bëree ba léegi. am na fukki komba ak benn am na ci juróom-ñeenti victoire ak ñaari défaite papi général bi mu arrêté combat bi mu arrêté carrière nee na léegi moom maarabu la maanaam day ñaanalaate <laughs> euh, ñu dikkaat également ci soose soose maane ñagas ak euh, tafaleer ñi ñetti espoiru euh, bawol mbooloo lan maanaam ay na tafatin len ñi moom comme seen combat seen carrière temps yi doxul trop journal bi li mu wax mooy ñoom victoire soxal na leen pour ñu mën a relancer wu. Pape Abdou Fall gis nañ ko également ci suñu làmb comme euh, làmb ji ubbeegul ba léegi Pape moom nee ne pare na bu euh, saison bi ubbee rek mu tëgg combat bi nga xam ne war na ko amal ci diggante Papa Sow ak sita combat bi nag waroon na am depuis 5 avril ba le waaye comme ni ngeen ko xamee mbas bi moo tax ba léegi amagul. keneen si suñu làmb mooy Yaaram Gueye Yaaram Gueye ñu bëri xam nañ ko nekkoon na fi benn mbër boo xam ne nii amoon na fi tur moom it li muy xamle comme Papis général rek nee na arrêté na carrière léegi mu ngi ci leneen làmb moom léegi dépassé na ko peut-être mu nekk ci booy di leen jàppale waaye lépp luy làmb dugg ci géew bi bëre moom nee na pare na ci euh, suñu làmb ñëw na itam si si Valdo nee na fukki. Euh, fukk euh, fukki at cu carrière am dix ans de carrière Valdo am na dix victoire ak une défaite mais nag war na jàkkaarloo ak euh, Ahmed dem combat boobu mi ngi amee sa Linguère sama dëkk ba Njaay mooy ku ko war a taxawal. Caat également journal bi dalal na ko Caat moom Leewtoo ci rubrique Leewtoo lan ko dalal moom li mu fay wax mooy dafay wax combat bu ko gën a marqué. nee na combat Tafa Boy Bambara ak Mambala mooy combat bi nga xam ne moo ko gën a marqué ci àddunaam Euh, beneen information mooy waa parcelle mbooloo ñoom depuis le 25 novembre bu lay passé ba léegi amatuñu président Mamadou kan ñu gën ko xam ci Zëm Kane bi doon bi doonoon seen président moom nee na tekki na ndombal tànkam li ko waral nag mooy nee na am na xale yoo xam ne ni gis na leen ci écurie bi te war nañu mën a doxal écurie bi looloo tax mu bàyyee leen cër boobu beneen beneen beneen mbër muy Batista 2 kii moom temps yi waxul dara affaire am mi ngi baax ndax euh, semaine du 21 au 22 novembre ba le passé mi ngi woon ci Gambie ba fa demee gañe fa benn gala am fa une tonne ak benn nag samedi bi passé itam mu ñëwaat Sénégal ci benn village bu ñuy wax Bulum nekk sa pas région de Kaolack jëlaat na fa beneen galaa ba fa pare am na fa benn nag ak mille francs CFA. ñu paree si suñu làmb ñëw si record record bu Abou Ndour record moom lu mu xamle mooy Modou Lo mi ngi wan yoon Bira Sène ndax euh, xaalis bi ñu dagg mbër yi moduloo li mu bëgg mooy euh, CNG di tëgg ay gala pour mën a suqali làmb waaye également permettre euh, mbër yu ndaw yi ñu wan ñu mën a am ci lu ñu jàpp. mu Abou Ndour dalal na également benn benn arbitre bu dëkk sa Niger bu tudd. Mahaman Moustapha Yahya Souley kooku benn arbitre international nigérien moom li muy xamle mooy que ne arbitre Sénégal yi ni leen di fayee ak arbitre Niger yi nu nu leen di fayee bokkul ndax euh, Niger euh, fédération bi mooy encaissé somme bi après mu xool lu ci jox arbitre di jox leen contrairement Sénégal nga xam ne arbitre yi dañu am benn pourcentage boo xam ne nii moom la ñu am ci ci ci ci ci cachet bi loolu la euh, moo fi gënoon fees ci. ci eh, yéenekaay yi ñu leen dox ñu leen di jox dig non loolu moo gënoon fees ci yéenekaay yi leen di jox dox daje suba incha allah jërë ngeen jëf.